j'ai pas l'habitude de parler devant les gens mais xol bu fess amna lo xamanteni buñ ko waxul si malik duñu duñu gor bok, dañu bok luñu bok muy Pape Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mu bok ak Al Amin, Day ak baye te ngay suñu fierté si malik man sama ci yow bañ na ko ban dama taxaw ñepp la ko Je ko may féliciter sama Fatima soxna Oumou Khayri aussi tamit ñu nek nekando ensemble jangando cour Sainte Marie de Anne nekando kër soxna mom Fama Al Amin merci malik sama cofeel ci yow yàlla la ko sédel te tay dama koy wax ñëpp dégg ko ndax bu loolu wesso nee astukan maram Selbe Abdoulaye wulima ma ay sa taak borom de dekk li ci jaxaw donc dama ni tey jii amuñu ku dul Pape man bokk ndax dama ni mooy sama yaakaar tey ak ëllëg